يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمنا الله الذين صدقوا وليعلمنا الكاذبين ñi ñu jëkkoon natt yi jànkonteel moo gën a métti te yàlla def yàlla boo xoolee saxaaba yi fi jaar fa yaqtuluuna wa loolu ñu jaaruñ ci moo tax Sëriñ wax na ba muy yebal yebal yeble ca quatorze geeru quatorze dix-huit ñu bëri xamuñ nam demee am na ci loxo xam du neex a wax ci mbooloo waaye sëriñ bi waxoon na ne da doon te bi muy jihaatee jëmmam la demee kenn ndax bañ kenn ku ci faatu astaxlisu li nafsi mooy jihaat jëpp mel na moo ko yoroon du ci yóbbaale kenn bu ndam la dikkee mu tasaare ko ñëpp bokk ndegam nag fa yàqutuloon wu yàqutuloon rek mënta moo tax ñam yabaloon ci guerre ña ca waroon faatu loolu ko indi am na su ñoo xam ne itam sëñ bi da leen jullee ngir xam ne dañuy faatu ci guerre ba kon Serigne Touba kenn mënu ko fay dañu jël jël suñ lépp jox ko te bañ koo booleeg dara ndax neewoon nag ku ma jox sa lépp ma yorul la sa lépp ku ma jox sa leen jox téye sa leen nag la nga ma jox ma defaral ko kon nañ Cheikh ba jox ko suñ lépp te bañ cee desal dara neewoon nañ ku ma jox sa jëmm. moo wóotul ci sa te ku ma wóotu ci sa naa fa xam loo fa xamul man fa loo fa mënul sañ fa loo fa suñu kon nag nañ sant yàlla baax a baax te xam ne ñu baax ña njëkk ànd ak Serigne Touba Cheikh Adama Gueye Cheikh Ibrahima Sall Ndiaye Serigne Massamba Diouf Samb Serigne Darou Assane Ndiaye Serigne Modou Fadjama ñoom ñëpp dañoo jëloon seen lépp jox ko Sëriñ Tuubaa te desaluñ dara. am na génn kilifa bu màgg ci ñoom ci seex si mastama wax ne ma Sëriñ Tuubaa de kenn ku ci day mel ne koo ko liggéey ci seex ku ne lam la waroon a fay mooy ndegam ma dangaa jëloon sa jëmm jox ko mu fa mu fayewaay la jënd jëmm mu sax jëm la liggéeyal waaye kenn ku ci ne yemu ci jox la jënd la la teg sa ginnaaw ñu lay liggéeyal kon Sëriñ Tuubaa man jaa bil hasanati falahu ashru amsaalihaa ne suñ borom di fay rek ni lay fay mm-hmm. mooy benn boo ko defee mu fay la ko ay téeméer te kenn ku ko mos a ak sat la képp ku ko mos a rotal ba àddina tukki say sët teraanga day sat noonu te lu dugg mu kon nag na ngeen góorgóorlu lu baax te gën a àndandoo gën a bennoo gën a àndandoo gën a bennoo ndax wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu loolu suñ borom ko ci alxuraan digal ko jur yëpp wa takun minkum ummatun yad'una ila al yi wala ya'muruuna bil ma'ruufi wa yanhawna anil munkari wa ulaa'ika humul muflihuun waaye itam wazkuruu ni'matallaahi alaykum iz kuntum a'daa'an fa allafa bayna quluubikum fa asbahtum bi ni'matihi ixwaanan wa kuntum alaa shafaa hufratin minan naari fa anqadhakum minhaa dellu waxaat ne wala tanaaza'uu fa tafshaluu wa tas'aba riihukum bu leen di xëccoo ndax bu ngeen di xëccoo seen doole day néew kon yéen taalibe yi ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha di fàttaliwaat ndigalu Sëriñ Tuubaa ndax moo ñaanoon ne te sëñ Saliou bokk na ci xasida yi mujj jàng waxtaan yu mujj wax tari na ci xasida la yaa rabbi ijaalil muridina maa fi xisnika alxasini wa cham lañ maa yow suñ borom maa ngi la ñaan bi yëpp nga dugal leen ci xisnullahi alxasin bi nga xam ne ku fa tàbbi dara dootu mënu ko dara mënatu ko bët di ak sa waaye nag maa ngi lay ñaan nga dajale ma sama mbooloo mbépp ba dara mbañ leen tàggale kon nag taalibe bu na fexe ba góorgóorlu mbokkum taal bi moom gis di xool Sëriñ Tuubaa ci moom bu dee xool Sëriñ Tuubaa ci moom gis lu ko naqari man noonu laay képp ku ma gis bokk ak yow Sëriñ xool ci moom ku ma gis nga taal bi Sëriñ ma def la sama mbokkum taal nga xam ne ak taal bi am képp am solo te Sëriñ Tuubaa lim ñu boole mu ñu ko séddoo kenn ku ne Sëriñ Tuubaa defal na loo ko mu taxee kenn ci kenn ci ñoom kenn ci ñoom ku ne ku ne boo xoolee jëmmam ji Sëriñ Tuubaa rek moroom mënu koo def lu ko naqari ndax nit moom bu xasee bëgg Sëriñ Tuubaa rek man gisatuma si sikk koo xas bëgg Sëriñ Tuubaa rek gisatuma si sikk te loolu nag ñëpp nekk te xool leneen ko ko ne adduna tax te adduna lu mu bugg yàq ko bakkan lu xoolee te Sëriñ Tuubaa ci ñu jëm kenn ku ne na may jëmmam magi taalibe yi de ñoo bokkoon sëñ bi bokk benn naan waaye mosoo cee dégg ñaari mag ñoo xam ne jàppante nañ kenn ku ne yaa ngi xool sëñ Tuubaa sa morom foo sa morom mu gën a la sa jëmm saxaabati saxaaba yi kat loolu la leen alxuraan tagge woon wa yu'thiruuna ala anfusihim walaw kaana ba mu bëggee xam ba xam dégg nañ ko déet da leen a taañal aw taañal aw ñoom yoon doo ko ndawal ni ci biir ñoom ñëpp ku ko daj bàyyee ko sa morom ba ndam la jeex doog a ndaw wala des na xam ne dégg nañ aay bi wa yu'thiruuna alaa anfusihim walaw kaana bihim xasaasatun kon fu ngeen la Cheikh Abdou Lahad Mbacké daa wax fu ngeen déggee ñaari xëccoo adduna tax waaye kon bu fekkee Sëriñ Tuubaa kese kese képp kenn du ci xëccoo ndax julli kenn du ci xëccoo koor kenn du ci xëccoo natt ak kenn du ci xëccoo dem màkk kenn du ci xëccoo liggéey Sëriñ Tuubaa kenn waru ci xëccoo bu ci xëccoo amee rek kooku na xoolaat boppam te bu ci àdduna duggee sëñ Tuubaa génn kon nag ñu ngi leen di sant bu baax leen gërëm di gërëm njiitu daayira bi sëñ Mouhamadou Ndiaye ci itteem ak pasteefam ak taxawaayam ak mboolem ñu ngi ko ci dëkk yëpp ndax kenn mënul dara mbooloo mbooloo gi def moo tax lii ngeen mën ko def di gërëm sëñ Mbàkke Ndiaye ci taxawaayam pasteefam ndax bañ duggee ci réew mi ba léegi ñoo ànd waaye pas pas bi ne woon ci sëriñam rek moom lay gis ci moom kon ñi ngi sant bokk taalibe yi ñëpp di leen gërëm di leen ñaan la ci barke Sëriñ Tuubaa te ngeen ci gëm ko rek xam ne xasida yi moom bu ngeen ko dee jàngate di ci kër Sëriñ Tuubaa ñi ñi du ñëw daay rëy nañ ci gën a góorgóorlu lii néew leen Sénégal ku ne Sénégal ku ne yaa ngi julli ci ajjuma di siyaar ji jumaa ji di siyaar fi kër Sëriñ Tuubaa kër nañ leen xam ne bu jamono neexee walla njàqare am wala jafe-jafe am ku dugg kër Sëriñ Tuubaa ba kon nag war leen bàyyi ba jafe-jafe wala yi am ngeen fay door a dem bu fi kenn nekkut tam ngeen war fay siyaare kenn dee leen fi ñëw te xam ne Sëriñ Tuubaa ngi di gis ndax ñun ñii kat ñu jàkkaarloo seen bët yi mënu leen a dara lu seen seen pasteur Sëriñ Tuubaa mm-hmm. siyaare si ngeen ñuy siyaare si itam. parce que Sëñ Tuubaa rek ngeen ci yaakaar mm-hmm. waaye du suñ jëmm yi mm-hmm. kon bu ngeen ñu gis tam te kër gi nekk di kër Sëñ Tuubaa tam bu ngeen amee pësif doogu te ñaan fi mm-hmm. te am ci yitte pësif na leen wër a Sëñ Tuubaa kon ñu ngi ci soññ ñëpp di ci góorgóorlu ngeen gën cee góorgóorlu ngeen xam ne kenn liggéey du Sëñ Tuubaa lu ndax ñaari waxtu yi nga bàyyi wala ñetti waxtu ay bis ba ay bis ngeen ci kër Sëñ Tuubaa gi loolu yàqul leen dara adduna nag day loo xam ne ko topp du jeex adduna ku ko topp du yéex kon waxtu yooyu ngay bàyyi ngir liggéey la ko Sëñ Tuubaa mu wóor la yaa ngi ci Sëñ Tuubaa di ko di ko seeral yàlla di ko seeral Sëñ Tuubaa moo xam ne daal muy loo xam ne daal la jariñ ci adduna la jariñ ci àllaxira loolu ñëpp ci war di soññante ku ci gis sa mbokkum taalibe bi ngeen dëkk nga gis moo taay ci dayri yi lu ko defee dee ci soññ ndax watuwaasaw bil xaqi watuwaasaw bi sabr te ay jullit fu ñu nekk dañuy soññante rawat ne taalibe bi Sëñ kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu